njëkk yu yéenikaay yi ak borom jërë ngeen jëf. jirë ngeen jëf Abdoulaye Wade yëngal na dëkk bi démb ba noppi gësëm Macky Sall kon góor gi moo yëngal gësam ubbi l'observateur président de la république ba woon secrétaire généralu parti démocratique Sénégal bi fii démb la yegsi ci ndakaaru ba mu wàccee ay daporum Dakar fa mu jaar ak la fa xew ba na mu duggee ca permanence parti démocratique Sénégal lépp mi ngi ci biir l'observateur ba mu yeggee ca siège parti démocratique Sénégal jël kàddu gi di wax ak i militangam fa la waxee luy tàkkate du fay nee na na sénégalais yëpp dajale seen i carte électeur taal ko ba àdduna bi yëpp te ci seen gët ndax bu ñu demee ci élection defi wote élection yi ñu nar a def ci réew mi du doon élection yu baax du doon yi élection yu jaar ci yoon te it na ñëpp xam ne bu ñu seetaanee bay élection am ci réew mi Macky Sall dina taxaw ne gañe ko te bu boobaa kenn du ci man dara Abdoulaye Wade ne jëlee fi Macky Sall moo ko fi yondi mook ñi mu àndal taxawal nañu kuréel gu ñu naan alliance nationale stratégique pour une alternative immédiate góor gi ne bu fi Macky Sall jugee ku fi mën di toog dinaa ko jàppale indi ci réew mi xaalis bu bari boo xam ne kenn mësu ko gis mu ne te nag na ko gaa xam bu fi Macky Sall faluwaatee loolee mooy Ousmane Sonko dee na ndax Macky Sall dana tëj Ousmane Sonko la si ne kay nañu Abdoulaye Wade yàq na Macky Sall ba mu yàqu yaxeet moo ki mbokkam Abdoulaye Wade nee na Macky sàcc la moo sàcc sama juróom-ñaari milliards daw nëbbi ko États-Unis te du moom Macky Sall rek mooy sàcc bi nekk ci gouvernement bi Wade nee na Aly Ngouille Ndiaye sàcc la Amadou Ba sàcc la Le Quotidien nañu Abdoulaye Wade défié na état bu Sénégal nee na na sénégalais yi dajale seen carte électeur taal ko bu ñu nee suba la wote ñu dugg ci bureau yi yàqate matériel électoral bi bu ñu demee ci ay woote Macky Sall dana ngar dajoo résultat yi quotidien nañu Abdoulaye Wade ñëw na ëndaale jikkoy taalkat nee na nañu taal bureau de yi lakk carte électeur yi mu teg ci ne Macky Sall sàcc la enquête dina kay nañu Ali Baba Kumbanaar li enquête bind ci xëta mu njëkk moo di tuufa tuufa lam góor gi ñibbisi na tàng jër boole ko kit we xat xalaat bi mu fi yëkkati woon jëm ci saboté wote yi ba léegi Abdoulaye Wade jugu ca sursu a nañu Abdoulaye Wade amatul ne donte mi ngi jëm mag am na téeméeri ko doon wax ak a waxal 2012 ak ba léegi gi mi ngi ci xoli askan wi ñëwaat na jëlaat siisub chef de l'opposition bi teeru bu rëy bi ñu ko teeru démb ay dapoorum Dakaaru ba ca permanence su parti démocratique Sénégal dafay wane ne Abdoulaye Wade moom mbedd mi ba léegi Wade mooy président de la République journal bi gis ne diggante Abdoulaye Wade ak waa Sénégal ab sëy la bu dul tas mukk bi muy ñëw fii la askan wi jaaroon ak moom ci digg naaj wu tàng jër gi ak nguuram daano mu dem bitim réew bi muy ñëwaat it teeru am mbooloo mu toll ne mbooloom Abdoulaye Wade mi les éco nañu ak ñëwam ci réew mi moom Abdoulaye Wade dafa suul candidat yi kenn déggu leen ñoom ñëpp la góor gi nëbbu ba noppi waxal fi Macky Sall lu ne weng nee na ci jamonoy Abdou Diouf ba léegi dafa am juróom benn fukki milliards ñu naan ko fonds spécial bu ñu jagleel Casamance Macky Sall ca xaalis boobee lay jël di ca gundaandaat Abdoulaye Wade ne li baax ci réew mi Macky Sall jox na koy mbokkam fi baax ci réew mi mu teg fa ay ñoñam ay bandi la ñu moom mi Abdoulaye Wade tuddee bandi di Macky Sall mi ngi njaab njaabu bandi ci xët mu njëkk Soleil national yëral xët mu bi ca diwaanu Kanel fa la doon defee ab meeting démb sàkku ci militangam ya ca Kanel ñu gañal ko ak yi ci des ñu jox ko opposition bi ñu këlamti ko ko soleil national nañu militangam ya ca Bakel ak ya ca Goudiri nee nañu ko boo tëddee nelawal danañ la jox ndam lu rëy ki mobiliser lu rëy ci HLM Grand Médine lise ko nee nañu mooy ministre Mame Mbaye def na fa mobilisation bu toj ba noppit wax na ba sottal Mame Mbaye da ko multiplier par 0,1 ba noppi garantil Macky Sall ne dana gagné élection yi ak l'observateur nañu waaye candidat bii di Macky Sall maître Madické Niang raté ko benn yoon Madické nee na su ma newoon Macky gis ni Fouta mel dinaa rusa taxaw naan Fouta sama titre foncier la Madické ne Macky bu ñemee woo ko ci ab débat public fu mu bëgg ñu dem fa danaa ko wan ne defoo dara lu baax ci réew mi sa bilan dafa niil ci xët mu njëkk A xam ne weesul jam ñaajo Ousmane Sonko nañu Macky Sall dafay organiser ay meeting ngir di wër di fecc waaye booy boobu mu changé waykat ndax Macky Sall poids lourd la tooye man la li woykatam bi di way Macky mënu koo fecc